sëriñ Jili Mbàkke sëriñ Jili Mbàkke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1946 ci dëkk bii nag di Touba ci dëkk bii nag la feeñe jamono nag ci atum 1946 muy doomu soxna Aminta Diop ak Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke moom sëriñ Jili Mbàkke nag amul kenn nag kum bokkal nag soxna Aminta Diop ak Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke benn bant la nag ci waajuram wu jigéen wii laataa sax ñuy xuus nag ci ay mbiram ñu wax leen nag jëmm ji ko meññi nag moom mooy kan muy soxna Aminta Diop doomu soxna Faati Diop ak sëriñ Jibril Jibril Diop soxna Aminta Diop ba tey sëtub sëriñ Daouda Ndiaga Dégéen jóob la sëriñ Daouda Ndiaga Dégéen Diop mii doomu sëriñ moor njaga Dégéen jóob la sëriñ Daouda Ndiaga Dégéen Diop mii bokk na itim nag ci mag ñi njëkk jébbalu nag ci ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xadim suñ sukkandikoo nag ci nettalib sëriñ Touba Seex Abdul Ahad Mbacké mu wax ne dégg na ne Seex Modou Moustapha nag moo ko wax ne sëriñ Daouda Ndiaga Dégéen Diop mii bokk na itim nag ci ñu njëkk a jaayanteeg sëriñ Touba Seexul Xadim moom itim nag sëriñ Daouda Ndiaga Dégéen Diop mii demoon na gànnaar itim Touba Cheikhul Khadim ci bi Serigne Touba Cheikhul Khadim nag nekkee gànnaar Cheikh Mamadou Fadal Mbacké tim doon ne wax ne ameel na nag ak pay kii di Serigne Daouda Ndiaga Dégène Diop mii jëmm jooju nag moom meññ soxna Aminta Diop soxna Aminta Diop mii nag lañ jébbaloon nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mu am ak moom nag benn bant nag muy Serigne Djili Mbacké mu nekkoon itam nag ku bëgg Cheikh ma mu Mbacké ku doyloo Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ku doon sàkku ngërëm itam nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ku ñuy wax Serigne Fallou Seck jiite daayira Miftaahul Muna bu Serigne wax na ne moom dund gum dund nag soxna Aminta Diop soxna Maymunatu Mbàkke Suxraa rek la ko joxoon ndax ci solin ak doxalin ak lépp loo xam ne nii daal ak jàmbaarte la moom na May rek la ci doon xool jëmm jooju nag moom meññi sëriñ Jiili Mbàkke waajuróom wu góor nag di cheikh Mamadul Faadal Mbàkke doomi sëriñ Touba Cheikhul Xadim la nekkoon na ñaareelu xalifa sëriñ Touba Cheikhul Xadim rakkam nag jum bokkal waajur wu góor di sëriñ Touba Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke la fayee nag doomam ji mu feeñ jamono nag ci atum ci dëkk bu sell bii nag di Touba bi mu matee dal alxuraanul karim moom turandoo sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke wi nag di sëriñ Jiili Mbàkke Cheikh Mohamadul Faadal Mbàkke moo woolu nag ku ñuy wax sëriñ ñang guy gi wax ko ne nag damaa bëgg na nga fob Abdul Xaadir Mbàkke mii nag di jiili yital ma ko turandoom nag sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke da nga boole koog nijaayam jii nag di sëriñ Cheikh Diop yital ma leen sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag waxtaan nañ nag maa ngi moom sëriñ ñang gi nag fobee sëriñ Jiili Mbàkke ak sëriñ Cheikh Diop nag yit sëriñ Touba Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag karima ginnaaw bu mu leen dalalee alxuraanul karim la leen joxaat nag cheikh mamadul faadal mbàkke biñ nekkee nag ci kër mu dul faadal mbàkke nag ab diir nag di jàng nag alxuraanul karim la doomu sëriñ moor xarisi bii nag jóge daaru salaam bambuk di sëriñ maxtaar xarisi ñëw nag tuubaa ginnaaw bu mu ñëwee tuubaa nag la ko ma mu dul faadal mbàkke yëbbal nag doomam ji ngir nag mu jàngal ko alxuraanul karim ci loxo yi sëriñ maxtaar xarisi nag moom sëriñ moor xarisi nag dëkk bi nag di daaru salaam bambuk nag la sëriñ jiili mbàkke nag jànge alxuraanul mboolem nag lii di xam-xam bisub keroog nag bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke nag di jébbal sëriñ maxtaar xari mii sëriñ jiili mbàkke nag mi nga xamal nag cheikh mamadul faadal mbàkke saa boo ma gisaatee dama bindub kaamil nag ba indil la ko loola nag ci 1958 la woon sëriñ jiili nag daaru salaam bambug nag la nekk ci loxoy sëriñ moor xari si ba ci atum 1968 fa la jànge alxuraanul karim fa la jànge itam nag lii nag di xam-xam ci 1968 nag la bindub kaamilam indil ko nag cheikh dul faadal mbàkke jébbal ko ko bi ko cheikh mamadul Abdoul Fadal Mbacke jëlee nag mi ngi koy wax ne sa ñaareelu kaamil mooy nag sa demu Makka sëñ Fallou nag tëje wax ji nag xaw tuuta loolu nag bisub juróom benn fan nag la woon ci weeru safar bis boobu sax nag la sëñ jiili fob nag di ko màggal wax ne nag ci la jëlee ngërëm nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke daana ci berndeel nag sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou ngir Cheikh Mamadou Fadal Mbacke daar nañ ci berndeel itam nag Cheikh Mamadou Lamine Baara mbàkke ngir Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ci bisub juróom benni fan ci weeru safar di bis bi nga xam ni nag ci la ko sëriñ Fallou waxee ne am nga nag sa sama ngërëm waaye sa ñaareelu kaamil nag mooy sa demuk màkka ñu ci tegee nag ay weer nag la mu mamadul faadal mbàkke nag génn àdduna mu xam ne na xaw tuut ji ko cheikh dul faadal mbàkke nag doon wax mooy soo yeexoon a bind kaamil bi nag dooma fa fekk sëriñ fàllu nag mi ngi génn àdduna fukki fan ak benn nag ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu sëriñ jiili nag mi ngi jébbal waajuram kaamilam ci juróom benn fan nag ci weeru safar at mi nag mooy 1388 dëppoog nag 1968 mu toll nag ci ñeenti weer mu bind nag ñaareelu kaamilam yit ko nag magam nag ji fi toog toogaayu cheikh mamadul faadal mbàkke di sëriñ moodu moustapha mbàkke fàllilu sëriñ moodu moustapha fàllilu itim moo eggale nag yéenépp cheikh mamadul faadal mbàkke muy yóbbu ko màkkatal mukarrama màkkatal mukarrama googu nag dem na fa nag ay yooni yoon daana fa umra ji itim nag ay yooni yoon ba ci bis bii nag di laylatul xadar daana ko màggal itim nag ci jidda màggal googu mu ko daa màggal nag ci jidda tax na itim nag cheikh mamadul na ko itim màggalu kazu rajab nag gi ñuy amale nag ci réew mi nag di Côte d'Ivoire mu di ko fa teewe 1972 ba ci atum 1999 mbooleem nag réewu Afrique yi itam nag daana fa tukki réew mii nag di Gabon nag ba mu fa demee am na benn généralu armée bu Gabon nag bu mu tuubal bi mu ko tuubalee nag mu ngi ko jox nag turu Serigne Touba Seexul Xaddim di ko doon wooyee nag général Xaadim Uyaabee ci 1979 nag la ko Serigne Djili Mbacke nag tuubal Denis Sassou Nguesso di président nag bu Congo xaritu Serigne Djili Mbacke nag la woon ba biñ koy coup d'état Serigne Djili Mbacke nag mu ngi Congo keroog itam nag Denis Sassou nag sëriñ Jili Mbàkke sëriñ Jili Mbàkke nag di ko xamal ne coup bi nag da nga ci mucc te réew moom itam nag da nga continuer nag di ko yor réew mi itam nag di Dubaay prince a bi nag ay yooni yoon Europe itam nag kasaalika moo xam France Italie ba ci Espagne ak mboolem nag réewu Europe yi continent Amérique bi itam nag naka noonu réewu golf yi itam nag naka noonu ci gàttal daal juróomi continent yi am nag ci àdduna bi sëriñ Jili itam nag daana ci jaabante nag ñoom ñoo nekk foofu tukki googu mu daa tukki nag téewuloon itam nag mu xam nag moom mooy kan nag sa tub seexul xaddiim la doomu cheikh mamadul faadal mbàkke la am na benn waaye nag bu ko doon mbubboo di wax ne nag doomu sëriñ fàllu mbàkke la sëriñ jiili nag la tudd bi ko sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke yëgee dafa wax ne du sëriñ jiili de sama moom bañ ko vérifié itam xam nañ ne itam nag du sëriñ jiili nag moom sëriñ fàllu mbàkke am na bés itam nag nit toog itam nag ci sëriñ abdou xaadir mbàkke di tudd turu sëriñ jiili mbàkke di wax na nag sëriñ jiili mu ndaw ngir sëriñ abdou xaadir mbàkke nag bi fi nekk sëñ Abdou Khadre nag di ko xamal ne jiili moomu nag du jiili mu ndaw ndax ca mag ña nag la bokk sëriñ maxtaar xarisi mi nga xam ne nii na moo ko jàngal alxuraanul karim moom seede na ne mbooleem ñi mu jàngal nag bari na waaye yëg-yëg nag bi sëriñ jiili nag am ci moom ñi ko ci am nag bariwul at mu jot nag daana ko seet si waat nag daaru salaam bambuka at mu jotitim nag daana ko solal at mu jotitim nag daana ko nag wàcceel nag ab dund sëriñ maxtaar xarisi nag doon na wax ne mi ngi ñaan nag barkeb alxuraan nag dal nag jëmmu ji wala nekk nag nag neenu sëriñ jiili mbàkke nag ku ko xamoon daa xam ne nag alxuraan nu ko neex nag la ci daa jëfandikoo ca barke ba ngir nag nit ki nag mën a jariñu magam sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu keroog nag bi sëriñ jiili eggalee jumaa jim naaloon nag ci tuubaa bogoo defar fa itam nag kër cheikh dul faadal mbàkke jébbal caabi yee nag magam nag sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu sëriñ moodu moustapha falilu itam nag mi ngi koy xamal ne li sëriñ fàllu bëggoon de def nga ko kon ngërëmul cheikh mamadul faadal ak mbooleem njabootuk cheikh mamadul faadal gi nag am nga ko yooyu nag yu takkoo takkoo takku nag Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ni mu ko defee nag ci Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ni la ko defee itam nag lenn itam nag ci njabootug Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Serigne Fallou nag la doon dabu mu amoon nag njabootug gi tax na itam nag lu ëpp nag ci ay doomam waa kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag la leen tuddee mu sanc nag ay daara nag yu takkoo takkoo takku ci réew mi ginnaaw bu fi waajuram bàyyi ko nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke magam nag Serigne moo ko dël nag dëkk bii nag di Touba Bogo ci Touba amoon na fa kër amoon na fa itam nag daara mu yeesalaat nag dëkk bi waajuróom sañcoon nag di daarul minan juróom-ñaari kilomètre nag moo dox nag digganteem ak Touba Bogo sañcaat na fu ñuy wax nag Sange sañcaat itam fu ñuy wax Touba Busra sañcaat na nag fu ñuy wax Ndindi Firdawsi ñu gën koo xam nag ci Ndindi forage sanc na fu ñuy wax nag Touba Busra téeméeri kilomètre ak ñeen fukk ak juróom benn nag moo dox digganteem ak Touba tabax na fa nag école coranique fukki kilomètre ak juróom nag yu kaare nag la fa gor mi ngi ci suuf si nag di Thiel ñaar fukki kilomètre ak ñaar nag moo dox nag digganteem ak Thiel amoon na ay këri kër nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba amoon na kër itam nag Ndakaaru amoon na kër nag Saatee amoon na kër itam nag Bofel amoon na kër nag Touba Alié dëkkub Cheikh Mamadou Fadal Mbacké amoon na kër itam nag ci dëkk bii nag di Poroxaan ak faneen ak faneen ak faneen nag fu mu amoon suufa yéene jim amoon nag mooy taxawal nag ay daara nag di jàngal nag mboolem taalibey Seexul Xadiim yi moo xam ci góor nag ak jigéen boole koog nag di leen former ci àdduna ndax bu ëllëgee nag ñu mën a am nag luñ mën a taxawoo seen bopp mbooleem kër nag yi mu doon taxawal yéene boobu nag la ci bëggoon a sottal waaye laataa nag yéene bi nag di sotti suñ boroom nag ñëw nag akub dogalam nag ci 2005 bépp kër nag bu mu am wala bépp dëkk nag bu mu sanc tabax na fa jàkka bu fa tabaxul jàkka nag ci biir kër gam fa am wutal na fa nag suñu boroom nag palaasam wala jox na fa nag suñu boroom nag palaasam mu ànd ak nag mbooloo mu takkoo takku nag di liggéey nag ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ñu mën cee ràññee nag ay mbokki boppam di ay nijaayam ku mel na sëriñ Ceerno Jóob sëriñ Cheikh Jóob nag mi ko Cheikh cofeel yu bundoo woon ci sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Makhtar Diop ñii moom ay nijaayam la ñu woon waaye nag ci ronam nag la ñu nekkoon nag yaakaar ko am na yeneen taalibe nag yum amoon itam nag ñuy liggéey nag ngir moom di liggéey itam nag ngir sëriñ Touba Cheikhoul Khadim ñu mën cee ràññee nag sëriñ Gora Sambu sëriñ Mor Guèye sëriñ Massène Guèye sëriñ Sang Sarr sëriñ Abdoulahi Ndiaye sëriñ Galas Sambu sëriñ Touba Mbodj sëriñ El Hadji Diop sëriñ Modou Sey ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daara jooju nag di Touba Bousra nag bi jëwriñu nag dëkk ba wala la defoon nag jëwriñu daara ja fob nag sëriñ fàllu buso jox ko nag daaray alxuraan ja nag muy jàngalee mu nekk nag ku doyloo sëriñ tubaa seexul xaddiim ku bëgg nag sëriñ tubaa seexul xaddiim waaye ku bëgg nag njabootuk sëriñ tubaa seexul xaddiim moo xam ne képp koo xam ne nii daal waajuróom nga tam jamononteeg yow itim nag jàppe woon na la sëriñ tubaa seexul xaddiima képp koo xam ne nii itim nag bàjjanam nga tam jamononte woon ak yow itim jàppe na la nag sëriñ tubaa seexul xaddiim ñim bokkal nag ay waajur muy njabootu doomi sëriñ jàppe woon na leen sëriñ Touba Seexul Xadiima ñim bokkal Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom kasaalika ndax ñoom moom benn lañu woon liggéey bu am solo nag bi ci sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke lu def ngir benn la leen ñoom doomu mu Mamadul Faadal Mbàkke yi sëñ jiili itam nag nekk nag boroom xaasa nekkit nag koo xam ne nii itam nag la sëriñ Maxtaar Xarisi nag ñaanoon ci moom muy mbootum alxuraan nag des nag ci moom loolu itam nag feeñoon na nag ci aw doxaliinam nit musta jaaxle ñëw nag te sëriñ jiili Mbàkke nag fajalu ko ci yar àdduna nag ci atum 2005. turandoo sëriñ Abdou Khader Mbacke bi ki ñu doon wooye sëriñ Jiili Mbacke doomu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bi mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag Touba Daaru Marnaan dend ak station Total bi ci kër googu nag la génnee àdduna ci bisub altene juróomi fan ci weeru koor ci atum 1426 nag ci gàddaay gi altene juróomi fan yi koor ci atum 1426 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy lundi 10 octobre 2005 lundi 10 octobre 2005 ñu yëgal ko nag ki toogoon toogaayu waajuróom di cheikh mouhamadul amin baara mbàkke yëgal ko itam nag ki fi nekkaloon sëriñ tuuba cheikhul xadima di sëriñ tuuba cheikh saalihu mbàkke mu sàkku itam nag ci doomam sëriñ muntaqa mbàkke ibnu mu mamadul basir mbàkke mu jullee nag rakkam ji nag di sëriñ jiili mbàkke ñu denc ko nag ci armeer yu mag yi te wetu maamam ja nag soxna awa buso te wetu bàjjanam ba nag soxna mareema kunta mbàkke soo delloo nag ci marsiya bi ko sëriñ cheikh njaay nag bu tuuba bogo nag defal mag ñuy wax nag dunduk sëriñ jiili mbàkke taxawaayu sëriñ jiili mbàkke njëriñ nag lu mu amaloon askan wi moom doomu mu dul faadal mbàkke bi fi mu jaar nag ci wàllum njàng yar nag gum daa yar nag taalibe yi barke nag bu mu amoon yéeme nag gumu yéeme woon nag ci njabootuk cheikh dul faadal mbàkke gi tudde guñ ko tudde nag sëriñ tubaa cheikh abdul xaadar mbàkke taxawal nag gu mu taxawal nag ay daara lu bare bare bare bare daal lañu ñu seeni cheikh njaay nag bu tubaa bogo nag di xamal ci dunduk nag sëriñ jiili mbàkke ñu teewlu ko jiili dem na saa xel ma dem na saa xol bi tooy na ngir cheikh jiili mbàkke moo baayam taroy na maamam taraw nay maasam cheikh jiili mbàkke moom roy na waaja niru na mag ja cheikh muudu waaja roy ci mbàkke dongaam ya wéet nañ njaboot gi wéet nañ baayoom ya jooy nan cheikh jiili mbàkke du tooge kenn du sooge lenn lu bon ci kenn kun xam ci mbàkke cheikh jiili noon na adduna jeex na waram ya fees na duniyaa cheikh jiili fu mu day wax lu baax te day jox miskin da koy jox seex jiili mbàkke moo jara sargal te jara ñaanal ndax day ku baaxal seex jiili mbàkke dem na ba busra mu sos fa daara bay fa seex jiili mbàkke dem na ba màkka tabax na jàkka ñéppa ne jàkk lim def ci mbàkke jëmu ju wóor la te moom ku xer la ku tooñ mu baal la seex jiili mbàkke day fekk kun foñ mbaate ku nuy bañ defar ko bam sañ boole ci mbàkke moo xam teraanga amul yaraanga wallahi jar nga xamle ci mbàkke seex jiili njoolul gàttul te yeesul rëyul te tuutul nayul ci mbàkke seex jiili diisul xatul te siisul ku baax la baaxal ci xeet wi mbàkke fonk nay mbokkam te saytu léppam jébbal ko mbàkke doomi alaaji mi moom jumaa ji sërif la waaji ci yoonu mbàkke bàmbaa di maamam falloo di baayam fonk na waayam jum am ci mbàkke boroomi xar baax boroomi tawféex te am na tawféex seex jiili mbàkke moom daana diisoo mag ñaaka geesu te am na xaasu seex jiili mbàkke waxam jëneenul jëfam jëneenul jëmm ju fesal seex jiili mbàkke jàkkaam ya gis-gis ba rëy baatin ba doy na seex jiili mbàkke dundam nga néew na te jëf ja mat na njariñ la yaana seex jiili mbàkke moom xam na yàlla xàmmee na yilla xam wareef la seex jiili mbàkke day jokku mbokk day fonku mbokk am di bokk nit ñi fi mbàkke seex jiili um na lambu ja daan na matal na dem na fa maam ja mbàkke roy na ca gaaya jël na midaaya ki am na raaya wuree ci mbàkke dox di dóore mbaa muy kuréere te moo di fóore seex jiili mbàkke jëfam ci réew mi dañ na ci réew mi ba jàll réew mi seex jiili dox di bàkku fu mu toog di sàkku lu baax ci mbàkke du ñàkk yitte nit ñi koy seeti ku ko xam du fàtte ci gaa yi mbàkke du dox di xaste du danga sante fu mu toog di sant borom bi sàkke gëm na boromam du moy boroomam du tooñ moroomam seex jili mbàkke du ayibal nit ku ñëw mu lay fat jikkoom ja daa set seex jili mbàkke rëy nay jaloore góor la gu waare góor la su piire seex jili mbàkke naa xat musaa way te dolli may may te ngay may seex jili mbàkke ay xalifaam nag nii la tëddee li dalee nag ci atum 2005 nag ba nëgëni kam faye waajuroom wa nag di di cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko wuutu nag nekk nag xalifaam bu njëkk ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu nag ak mbooleem nag ñu mu séqal sëriñ li mbàkke sëriñ li mbàkke nag am na bis nag bu ñu koy fàttaliku nag ci liñ tuddee ak màggal bis bii mu bindoon kaamil nag yit ko waajuram nag cheikh mamadul faadal mbàkke muy juróom benn fan nag ci weeru safar bis boobu nag sëriñ jiili mbàkke nag daana wax ne ci la jot ngërëm nag ci cheikh mamadul faadal mbàkke lépp lu mu amitam nag weeru safar nag la ko amee moo tax nag moo ko daa màggalal boppam daana ci berndeel itam nag képp ku toog nag toogaayu mu mamadul faadal mbàkke muy sëriñ moustapha mbàkke falilu ba ci cheikh mouhamadul amin baara mbàkke bépp doomu sëriñ fàllu mbàkke itam nag joxoon na la ci cër bis bi nag sa bis la yéen a bokk nag cheikh dul faadal mbàkke ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam nag sëriñ fàllu mbàkke nag mi ko wuutu ànd ak nag ay rakkam xam ne daal seen waajur wa bii nag mu daa màggal nag muy juróom benn fan nag ci weeru safar a